fekkee nit ñi dañ lay xaar pour nga ñëw dalal seen xel nga dem di jooyandoo ak ñoom yow nga war a dalal seen yaakaar nga dem di jooyandoo ak ñoom mooy amuloo solution man man man fan laa jëm kii waay ma la laa may damay damay damay suul sama bopp léegi noppalu benn yoon gas barki yaa Tu comprends prennent. Ils m'en Mouais. Eh, ah, ah ah ah ah ah ah ah. Eh, man man manam Eh, gars yi damaa jaaxle maanaam man dama jaaxle ba euh, opposition bi opposition Diomaye euh, président jugal ci sa opposition bi ah kii kii kan la kii du kii du kii du kii du kii du eh laa ilaha illallah Déthié Fall a ngi nii laa ilaha illallah waa Déthié waa man Atta asalaamaaleykum sama gars yi ziar naa leen bëggee leen jox leen seen wàccuwaay eh, di leen wax ne ngeen di abonné di like di leen like like yi am na solo wala di leen wax ne maa ngi ànd sëñ Moustapha Mbacke di surtout sëriñ Abdoulaye Mbacke di ñaankat boobu nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu ngor rek yàlla may na tawfeex bu baax a baax a baax. Eh, ku si am jafe-jafe rek dangay ngay jokkoo moom si numéro boobu mais day ñaan tamit day lisxaar eh, sama gars maanaam man opposition bu bees bii dama am lu ma si jaaxal maanaam bërki démb laa fi gis ñoom yàgg baax ak ñoom màjj màjj ak ñoom bugaas ñu àndandoo dem toog a Khalifa ci benn taabul ak Kirikou ba Kirikou ba mu fa génne wax ju mel nii la ci teg. nous tous par rapport à cette coalition de l'opposition je peux pas ne pas en parler pourquoi parce que je pense que comme dañuy wax sénégalais parce que euh, il faut que sénégalais aussi du rôle. parce que si ils sont totalement anti système. ce qui est en train de se passer c'est le comportement des hommes du système Macky Sall c'est un homme du passé. hier nous tous on a assisté ah ah c'est lancement ay magum jëm kii gedd gis nga gis nga kii eh attends Massaly Massaly le seul débat qu'il peut y avoir mooy mu am ku ñu fàtte wala ku ñu juum ci ni ñu bindee sa tur wala nga ni bokk ma wala génnee ma leen ñëw pourquoi parce que dem nañ benn moment ki doon lire la liste des partis dem na ba fàtte loolu li muy wane mhm. moom mooy waxtaan amul c'est de l'impréparation donc il ne faut pas que nous disions « sénégalais mhm. par rapport à ce que nous et je pense que je l'ai dit dans une radio de la place nous, on ne va pas se compromettre avec le chef de l'État mhm. nous, coalition transformer en coalition yéen a ngi toojantee bopp ngay wax koo xam ne. sénégalais yi fan lañ fekk di régler problème sénégalais yi parce que loolu lañu tal quand on m'a demandé j'ai dit que président xam nga lan la tal. Mhm. jafe-jafe yi sénégalais yi nekk mu lijjanti ko au lieu ñoo xamante ni ñoom ci seen bopp. Mhm. ils sont totalement contradictoires dans toutes leurs analyses dans toutes leurs euh, déclarations. Mhm. au lieu di ñëw di wax ne dañu compromettre nañ lijjanti seen contradiction matinale ba pare. ginaaw ba loolu weso ñu wëlbatikuwaat mu xëyaat gisaat beneen opposition encore ñoom dañuy opposition bu bees boo xam ne da ngay jékki gis leen si benn taabul eh, ñoom yàgg baax ñoom toog fii bugaas maaji maaji nga jikki-jikki ñu ne mënuñoo juboo seen biir parce que jubóowuñ daal de ngeen ni ko Abdou Kiri ko waxee léegi ñu jikki-jikkiwaat tuat beneen bu bees bi yok nañ ci eh, Déthié Fall Déthié Fall nag xam naa ne eh, yenn patriotes yi dina leen xaw a jaaxal mais bu mu leen jaaxal parce que man moom Eh, samay wax jóoloo jaru muus la waaw boo leen fàttali ko il y a ci ginnaaw am na lu ma leen waxoon ci Déthié Fall nee naa leen nañ dem rek voilà quoi parce que nag Déthié Fall ak eh, Sonko wala Diomaye jotewuñ dara n'est-ce pas kon lu fi xel la lu fi lu fi xew ci diggante bi ba mu dem ah, Aliou ak ñi nga xam ne <laughs> ay waaye suñu opposition bi te man li ma si gën a neex nag opposition boo xam ne pouvoir bi du leen xool mukk ba tiit xam nga sax waroon nañu am benn kii daal benn waay bu xaw a bu xaw a dëgër boo xam ne dina am benn poids électoral boo xam ni tax gars yi dinañ ko xaw a peur quoi mais man ñii damaa gisul kenn koo xam ne daal wax dëgg yàlla eh, élection yi yàlla ñëw si jàmm waay xam nga man nu ma yàkkamti élection yi ñëw parce que nag eh, li tax ma yàkkamti mu ñëw mooy du élection yi passé am na luñ leen won ñenn ñi nee wala askan bi ñu bëggoon changement léegi euh, nangam nangam nangam dañuy xool fu doole ji ëppee ñu dem foofu pour mën fee jëleñee d' accord loolu ngeen wax élection yi nag élection député la kenn ku nekk da ngay dem ànd ak ña nga yaakaar ne ñu mu war mën a àndal mais ñun le président Ousmane Sonko askan bi ñoo ko ne force soxlawuñ nga ànd ak kenn parce que ñi ngay àndal ay baadoola lañ ay workat lañ boo àndee ñoom dañ lay war après nekk ci seen bopp léegi nag mu jël ay décision am ne àndut ak kenn ku muy àndal da ngay ñëw ànd ak moom ci turu Pastef léegi nag <laughs> ñenn ñi mer nañ ngemb dem nañ seen yoon merci beaucoup képp koo xam ne daal li leen Ousmane Sonko tegal arrangé wu la génnal nga dem sa yoon parce que ñun dañoo soxla ay député yoo xam ne ay cent pour cent patriote la ñuy doon ñu gëm réew mi te du duñu wor ñu fen léegi ñun Ousmane Sonko moom soxlawul ànd ak kenn soxlawul kenn ñëw allié wu soxlawul kenn ñëw mi yéen ñi nga xam ne jàpp ngeen ne mën ngeen a jàkkaarloo ak nguur gi fi nekk dajaloo leen waa APR ak waa PDS booloo nañ man nag dafa am wax joo xam ne dama leen ko waxoon at ci ginnaaw dama leen jox vidéo bi ngeen seetaan kon ñu dem ñëwaat. ñi nga xam ne ñoo wër Sonko ñëpp laa wax bonalu ci kenn mais man validé wu ci kenn xam naa ne nag ànd mënut a ñàkk parce que benn benn lam du yëngu moo tax ànd ak ñoom waaye Sonko doful dina jàpp ko xam ne ñi mu war a àndal ak ñi mu wërta àndal. na élection jot nag yàlla jox ko réew mi mu mu mu raxas yi ñenn ñi ñu naan dafa war warul de il ñu raxas ñenn ñi pour defaraat réew mi. yaakaar naa ne waxoon naa leen ko ay at yu néew ci ginnaaw ñun nag yaakaar naa ne boo leen bëggee dégg-dégg euh, ñun am nañ ñoo xamante ne nii ay vraiment ay cadre lañ yu baax a baax a baax ay alliés yu am solo yu am doole sax yu am ginnaaw ci réew mi te ñu ngi ci biir euh, projet bi di ci liggéey. voilà kon nag boo leen gisee seen bopp ba jàpp ne war ngeen <laughs> seetddd <laughs> a man de gars man wax dëgg yàlla nag nag nag nag nag nag nag nag nag ndeysaan c'est que nag yéen problème bi mooy mooy yéen euh, yéen xoo maanaam kan mooy doon seen tête de kii doon tête de liste bi moom am na sens peut-être mën na am ñoom dinañ am benn candidat wala ñaar mais gëm naa ne ñaar yooyu ñaar boo leen weesoo ñaari candidat dina ma xaw a jaaxal lool léegi nag foofu la problème bi di commencé waatee parce que Bougace moom ku nekk xam na ne dafa yàgg bëgg dugg assemblée nationale dafa yàgg bëgg doon député dafa yàgg bëgg doon maire dafa yàgg bëgg di compétir ci ay élection léegi nag élection yii di ñëw <laughs> Bougane sa bureau de vote voilà naa ko xam quoi voilà parce que dañoo soxla résultat bi génn foofu voilà parce que comme réew-réewlu beeg ball ballu beeg ngan ngandul gi il foog ñu xam ban bureau de vote ngay voté jour élection yi ci ngoon man résultat boobu moo ma si gën a ñor mooy bugaan ñaata la am si bureau de vote bis bu boobaa nag di nga xanaa nag gëm yàlla tëj sa lii te dem toogi lem ba mu ron <laughs> yow bu na ko comprendre sax da ngay laaj ku mel ni ay ñoom Bamba Fall voilà ñu nga xam ne dañoo jugee ci élection ñu fal leen ay maire ki député ñu jugee fa dem ci mag Sall ba leen fa élection fekkaate lan moo leen fa dal yow nag jotagoo dem ci benn élection mais teel nga woon askan bi yow yaay kan léegi nag ñun ñoo ngi suñuy carte d'identité ñoo moom suñu bopp ñu ngi lay xaar ñu ngi lay xaar ci bureau de vote yi voilà yow kenn menacé wu la pour dajeeg yow ci mbedd di la duma wala yooyu noonu dañ lay menacé ci bureau de vote yi la dañ ñu ngi lay xaar ci bureau yi bis bu ñuy compter di. nam di nan ki ñaar la am kii ningam la ko do re yeen bare amé ñaar sante len ko ñaar te ñaar yoy problème nar na am ci ki la wara don wala ki la wara don kan moy don tëddal ci bi ah bugante xam naa dina jëm a xëccoo tëddal si parce que fi la don xëccu ay couleur nan couleur bi da xaw a bulaak daa xaw a da xaw bokk da xaw a en tout cas daal dajalo len leen seen biir waxtan len <laughs> té xamna na jubo du yomb mais waxtan len rek ah yeen ñepp contre ñun kase Nous jàpp tout duma leen ba ngeen tëdd fa la ak Khalifa Ababakar Sal. Khalifa Ababakar Sal. 69 763 soit 1,56 1,56 Pape Djibril Fal. Pape Djibril 18 304 voix dont 0,41%. Anta Babacar Ngom. Anta Babacar Ngom a obtenu, pour ce qui la concerne, 15 457 voix, soit 0,34%. Ali Ngouindiaï. Ali Ngouindiaï. 20 964 voix, soit 0,47%. Bonne hélène, qui aimé, de partager, de participer. di envoy ay keur aw gor partager len na ci ñepp jot lien yi ne jall na keur yi bari du deug lolay tax suma ñew suma togaté ma ne rabbi sirah li sadri xol rek muy 28 vie 28000 vie waye fi ne la ma am 1000 ni may sonni